barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mu faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. Sidi Barham maye góorgóorlu leen jéem a xami yàlla balaa dem saama barba duñ fa isaab ndongol. sidi bara ammaye bara yebi sango palman be indingele manli kula rere lapti waylun sidi bara ammaye alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh lu waral woote bii mooy ndigal lu ca xalifa ba di mawlaaya Cheikh Ahmad Tidiane ndigal li nag lan moo ko tax a jóg mooy xadaratu jumaa bu mag boo xam ne musta am ci xadara bi musta am ci pays bi muy xewal lu rëy loo xam ne képp ko ko rëj ku ko rate dootoo ko amati mboolem muqaddami Baay Ñas yi daje ci benn barab imaam Seex ñëw baaba ñëw ñu jiite xadara boobu bi faydu bi amee ba tey mi ngi soog a am xalifa bi moo joxe ndigal nda mboolem taalibe yëpp ñu joxante loxo bokk benn jotaay ci njiital Seex Siraaji Diin programme bi nag li ko gën a waral mooy muqaddam yëpp di dem lante ku xew la sa morom dem fekk li la looloo tax ñu ne nañ organiser lii ñu waxtaan ceeg mboole muqaddam yëpp ñoom ñëpp ñu ànd ci alhamdulilah rabbil alamin fa seeni ñoom ñëpp ñu ànd ak seeni taalibe teew ci bés boobu ñu ngi ñaan yàlla ñu fekkee ko ñun ñëpp ci jàmm kon nag ñu ngi ñaan mboole muqaddam yëpp ñu teel a ñëw teel a agsi buñ ñëwee imaam ak cheikh Mouhamadul Amin buñ defee xadara bi ba pare danañ waxtaan ak mbokk taalibe yëpp. Euh, muy événement bu rëy boo xam ne musul am Dakar euh, événement boo xam ne xadara juma la ñu koy organiser vendredi le quinze février ci terrain ACAPES muy loo xam ne lu ñu am ci ndigalu sëriñ bi la ndigalu xalifa ba ca médina kon nag ñu jàpp ne pays bi oote na bu ñëpp buggee ñëw nañu teew 14 heures ñu teew teel a def installation bi préparer xadra bi di ñaan nag yàlla nañ ci egg si jàmm ñaanal senegal ndaxte xadra bi euh, juma bi li ko tax a jóg du dara lu dul waajal gàmmu Taïba ak ñaanal Sénégal ci situation bi ñu toll euh, ñuy leeral nag ne xadra bi dañ ko jagleel mu xadami bàyyi nekk Ndakaaru ak Sénégal yépp kon nag bu kenn manqué keroog ñi ngi ñaan yàlla bu kenn am gan. naa sant yàlla bu baax ci xew lu màgg bi mu may muy taalibi baay yëpp nar daje ci benn pàkk ci benn barab ci terrain ATPES. ajjuma fukki fan juróom ci weeru février bii nga xam ne daje boobu dajale boo xam ne xëpp naa ñàkk a teewee ñu àndandoo ak muqaddam yi nekk ci dëkk bi di oo ñëpp kenn bañ a ñu. ñaan yàlla ñu egg ci jàmm ñëpp ñëw ci jàmm teel a ñëw ku jullitu subaa rek nga egg si. soo leen déggee lii nag bàyyee soxla te bàyyi bu soxlaa ñëpp war nañoo ñëw te gëm naa ne ñëpp dinañ ñëw sax parce que kenn ku nekk am na lu ko bàyyi defal te yëg na ko. Cheikhaani wax na wax ju am solo ni sixaabu seex yi kuunu kal xiral laa yatiiru in raa xayran tadalla yéen taalibe bàyyi mel neen ni picc bu ñu wax xiral laa. ci bay naaw fa gën a kawe waaye fu gis njëriñam wàcc mu njëriñ gi nag mooy liggéeyal Mawlana na Ibrahima Niass daje ci baay waaye bu dajee baay jotee te muy liggéey bi alhamdulilah nañu ñëw ñu ngi koy ootee di oo mboolem taalibe yi ñu daje mu fayda la yowmu talaqi nasaixi wa tazkir alhamdulilah kon nag woote baa ngoog doyoon na rek li Cheikh Ibrahima wax ne bu ngeen demee ba rafetal seen diggante jot ngeen dayoo teral ma waaye rawatina li yàlla wax ne su ngeen ma tuddee ci mbooloo ma tudd leen ci mbooloo mu ko gën rawatina mbooloo moo xam ne ki ko jiite mooy Cheikh Tidiane Aliou Cissé ak ki nga xam ne mooy Mouhamadul Amin Ibrahima Niass ñu ngi ciy woo mboolem jullit yëpp bésu Sénégal di si ñaan jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj. ñun Tijaan yi àjjuma ñun ñëpp zikru jumaa daf ñoo war te Cheikh Tidiane wax na ne am na ci yenn bés yi nga xam ne yenn nit ñi képp ku leen ci gis sa yaram aram na safara. man na si tiyaan jumi mun a altine wala ajjuma am na yenn nit ci tarixa bi ku toogaaleeg ñoom wala nga giseen sa yaram arab na safara suñu yàlla may chance rek ñu am ajjuma ñu mel na tey imaamu Medina Baye mu Cheikh Mouhamadul Amin fu mu dem ci àdduna nit ñi di réglugloo bërki Demba Ndiaye la moo Mauritanie bu ñu yàlla mayee chance ci mbaaxaayu commission culturelle ñu mel noonu tey ñu war a mën a toogaaleeg ñoom ci benn barab ci benn heure muy tàkkusaan ajjuma bii di ñëw ci Parcelles Assainies Thiel ak Akabas wax dëgg yàlla yiw gu mel noonu war nañ góorgóorlu ñun ñëpp ñu ñëw teewee ko. dëgg dëgg ñu ne ñu xaadara ñëpp xam nañ ko lu ci Cheikh Tidiane wax lu ci Maolana Cheikh Ibrahima wax lu ci wulu yàlla yi magi wax kon bu ñuy sax ñu Cheikh din ooyee ci ñu liggéeyal Bañes jaarale ko ci tudd yàlla jaarale ko ci wasifa jaarale ko ci xadara juma ñu koy defee fii ci Ndakaaru nga xamante ne musta am dëgg-dëgg ñuy wax mbokk taalibe yëpp bu kenn am ngànt ñu ngi di woo loo xamante ni dafay dundal ñëpp te mooy xadra juma bu mag bi nga xamante ni dégg ngeen li si Cheikh Tidiane wax Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ki nga xamante ni li ko tax a jóg moom moo ko xeetu yonent bi yëpp li ma jubli si ñoom mooy ommat leen yóbbu leen si xadra borom bi nga xamee mooy aji baax di aji yërëme di suñ borom ñu ngi leen di woo di woo taalibe Baay di woo Tidiane di woo jullit ñëpp si xadra boo xamante ni njëriñu Sénégal la njëriñu àdduna la man Baye moom waxoon na demal defar Dakar ci mu ngi dund de. amul benn quartier boo xam ne taalibe Baye am na fa te demoo fa ci carte nañ jàpp ci yàlla moomu jaarale ko ci buntam Mawlana Cheikh Ibrahim damay wax toujours ne doo dem ci benn jàkka julli jot ñu indi ñaari imam benn imam rek mooy am ci jàkka imam bi ci suñ xadra bi nag mooy Baye Baye Niass ku dul moom maamam nga nañ jàpp Baye mooy suñ solution. su ko defee yëpp dana baax. ñu ngi ñaanal réew mi yëpp ñun nag ñun taalibey Baay lañ bàyyi rek a ñu doy kenn doyuñu ko dul Baay kon nag ñu ngi ñaanal suñu mag Cheikh Ahmad Tidiane Alaaji Abdoulaye objectif am moo doon ba mu dundal ko yaakaar naa bi muy laata dee dundal na ko tey dundal na ko ba tey ba tey ci dëkk yu mag yi la bokk ci Sénégal Cheikh Ahmad Cheikh Ahmad Dame moom li doon itteem mooy mottali jumaay baay ji te mottali na ko ci kanamam ba julli ba soog a dem Cheikh Ahmad Tidiane nag moom boole taalibe bàyyi moo ko tax a jog xam nañ ko ñun ñëpp xam nañ ko kon nañ ko ci jàppale nañ ko ci dimbale tey wóoluwante tey demante dikkante buñ ko defee rek yàlla danañu fajal suñuy aajo yu zahir ak yu baatin kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ñu ngi leen di sant yàlla ñu yàlla fekkele bés bi incha allah bu keroogee ku fa ku fa dëgg na ma masal برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان